bu baax nuyu leen jox ku nekk uh, wàccuwaayam tey nag uh, ñu ngi fi nga xam ne ci mooy ci terrain uh, Monténaro ñu ñëw gis fi li nga xamante ne moom moo fi xew waa muy ay oto yoo xamante ne dañuy tàkk ba jeex kenn nag koo xamante ne mu ngi dëkk ci koñ bi ñu koy wax ngaala moom la ñuy bàyyi tuuti rek ak mbokk mbokku téléspectateur de la OTV mu nuyu wax ñoom bu ñu paree rek ngaa la nga wax ñu tey ana mbir mi tey naka la demee. waaw Moussa ñu ngi leen nuyu di nuyu waa Wakaam yëpp bon affaire daal benn euh, tapissier moo nekkoon fii donc moom moo amoon ay éponge yu doon tàkk léegi tàkk bi moo leen ëpp doole ñoom dem ba jàpp oto euh, mécanicien yi bon ba mu jur li ngeen fi gis ni yëpp oto yu bëri yoo xam ne dafa nekkoon en réparation yenn yoo xam ne oto yu ay épave yu nekkoon lépp daal di daal di tàkk daal loolu loolu daal moo fi tey loolu eh, bon ñi fi nekkoon moom jël nañ si seen i parce que ñoom ñoo jël liñ fi amoon si ndox liñ fi am si suuf jaay yëpp daal si jàpp comme ni ñu waxee rek xam nga fii moom jàppalante moo fi am le temps que di yegg si ba ñoom ñuy ñëw di commencer intervention fekk na ñi fi nekkoon ñoo jël les loolu xëy na moo tax ba yenn yi ba juru fi yenn dégâts yi bu dégâts matériel lañ fi mën a tudd mooy li ngeen fi gis nii à loolu moom bon yàlla bu baax. tey ana lan ngeen di wax ci oto yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ba mu waral li ci xataay bi yooyu. waaw loolu xam nga lu ñuy yàgg a xeex la mais dafay da nga yéen a dafay am fu muy a wax trop mais fii boo leen fas yi jóge fi mais ay mécanicien ñëw gaare fi am na su loo xam te ay mbokk lañ ay dëkkandoo lañ bu ñëwee gaare di liggéey ñu dem bon xam naa ne tombé na tey mu fekk fii mu fekk ay oto am fi moo tax affaire demee nii mais amaana boo fi doon ñëw yenn saay li nga fi fe di nga fi fekk mais doo fekk comme ni ko daan fekkee mais loolu tamit lu ñuy war di bàyyi la gis nga ñëpp képp kuy mécanicien da war a bàyyi xel si loolu parce que jël alalu jàmbur di ko liggéey ba li fekk la si ndogal bii bu la si fekkee nan ngay def ak borom donc lu doy waar la ñu si war a bàyyi xel ñun ñëpp ñu jéem a góorgóorlu ba nga xam ne si suñu cadre de vie dina normal loolu moom it bon bokk na si li nga xam ne si mooy yombal suñu dund te mooy neexal suñu dund parce que li cadre de vie la da ngay rek tase oto da ngay rek tase oto donc mais bon doo si mën a wax lu bëri la tey boo amoon kàddu gu mujj bi ngay wax euh, gars yi yan kàddu lay doon waaw xanaa di di fagaru rek fagaru di di di di sóoraale lu bëri lu ñëwagul donc di jël ay mesures xam nga di di di waajal mécanique bu dee tëpp tapissier la nañuy waajal ay extincteur lu ñu fayee bu dee ñoom ñii mécanicien dañuy waajal extincteur lu ñuy fayee parce que tàkk bi bu xasee judd balaa ñi lay jàppale di ñëw yow nga mën si def sa waaleef nga mën a def yow li nga xam si dina tax au moins dina atténuer dina wàññi daal euh, dégâts yéen yi waaw euh, jërëjëf mu ngi noonu kon vie dañuy tàllalaat rek keneen suñu micro mu waxaat ñu beneen réaction nga xam ne moom moo fi xew ba ci kanam waa ne jot na cee hmm. boobu se malheureux incompréhension la bon waxuma pour viser kenn mais je suis témoin des faits booy boobu doon wax defagu fa un an comprendre te fa mu jëkkoon a nekk bi borom moom mu waxee ne na fa jóge man kooku maa ko wax ne que bàyyil booy bi mu liggéey parce que bu fi liggéeyul ñii ñi dépôt d'ordure lañ koy def wala ñu fay tour ndox def lu dul noonu donc toog nañu fa ba kooku dem ba insister ne nañ jóge terrain donc euh, mooy rek def lu baax ñu fay lu bon waaw lii ma doon wax nag moom mooy euh, dëkk boo gis dafa am organisation donc fa am boo gisee ay zone industrielle domaine industriel ah yooyu boo koy dégg looloo ko indi pour éviter yenn métiers yi nekk dans le voisinage immédiat des gens des des des des maisons ñenn métiers yi nekk si booru kër yi loolu moom moo indi ñu ñu daal di indi ay zone industrielle domaine industriel la zone de qualification professionnelle bon lii nga xam ne nag moo am fii fii lakkoon na yaa si yaa deux ans à peu près te te biisu naar bi moom moo lakkoon lakk ñu fay ko après c'est passé comme ça sans problème ñi ñi bàyyi noonu naar bi yokk superficie bi mu jëloon gën a sécuriser ay biisam boo seetloo tey lii lakk gi métti métti métti duggul si si ay biisam parce que daf ko baare bu mu baax Hmm? mais ñun ñoo fi dëkk ñun ñooy les voisins immédiats ay mag ñoo fi ne ay nit ñu sibiru ay nit ñu malade ay xale yu ndaw ay lu ne donc des vies sont en danger léegi bu fekkee ne nag euh, dañu dafa demee nii terrain bi nekk fi vidde xale yi war fi man football war fi man foowe mais ay nit occupé ko ñu ne lu tax ñu occupé ko ñu ne bu ñu ko occupé wul léegi kenn jël ko ne moo ko moom walla léegi kenn jaay ko loolu moom mooy problème bi en réalité waaw ñun ñu ngi ay lu ne prostituées yi bu guddee fi ngay toll di leen dégg ay agression yu yuuxu yi fi ngay toll di ko dégg tout simplement parce que ay ay détruites yi ah ay ay ay rek la ñu jël entassel ñu en mécanicien nag waroo dajale ay oto surtout boo nekkee sur la voie publique nañu waxante dëkk boo jë at un mécanicien qualifié oto du fekkante bu oto ñëwee beneen fekk ko fi beneen génn ah, mais dem nañu dem ba booy bi fi jëkk a nekk bi mu fi installé man maa suma voisin yi dañu ñëw ne bu mu fi installé dem nañ ci ba bind sax maire yi ne bu mu fi installé lu ne ñi ñi def nañ ko mais dañu mujjee di ñu wax ne ñun dañu bëgg affaire kilifteef dañu bëgg ay affaire dañu bari problème dañu bari dañu soxor dañu iñaan ku ne di wax mooy comme nii léegi rek ñu si seen yoon nekkul gis nga leen ñu dugal si seen gémmiñ bu ñu waxantee dëgg rek mais bu fekkee ne li may liggéey de ça met en danger la la la personne ça met en danger le la population mais war nañu mën a am sañ-sañu ne que est-ce que doo ko def na est am ni ma la du question xeex kenn du question kii kii doon wax noonu su ma rakk la parce que ñoo dëkk xale bu ndaw la mais euh, gisuma loo xamante ne war na mën tax muy ut lu muy wax li ñuy wax moom concerné wu ko parce que at rek la fi def defagu fi sax euh, at booy seet mais ñeneen ñi fi nekkoon te ñu doon opposé wu pour ñu ubbi fi atelier ñooñu ñoo tax ñuy wax xam nga li ma la tey jii nii xool nga fit ba bii nii ñu nekk bu fi nit dee woon tam lañ la jox maasa ndogalu yàlla la si gën dégaale mu jeex mais on est en 2024 les gens doivent avancer mba atelier mécanicien yi ne si booru tali yeex ruqa yeex yooyu yëpp dañ ko war a fexe mu jóge fi atelier mécanicien yi am fu ñu ne nit boo demee ba qualifié am métier amal courage yu ubbi local ni bureaucrate bi di ubbee bureau pharmacien bi di ubbi pharmacie un mécanicien war na ko man ubbee mécan euh, atelier mais tu ne pas fii ngay liggéey nga war fa réparer benn oto wala ñaar mais lii ko wër yëpp plus de cinquante voitures yëpp ñu ngi dépendre yow te ñu ngi encombré d' autres personnes yoo xam ne amuñu sax oto wala d' autres yoo xam ne ñëwuñu sax sa atelier waaw man suma oto fi ma ko doon réparé mais kooku noonu jamais oto oto fekkante si atelier par principe musu ko nangu parce que fii mu nekk dafa xat te boo ko joxe sa oto day ngay veiller à ce nga teel a jël sa oto lii nga xam ne nii nag moo am yàlla moo si def sutura ngelaw li dem beneen boor comprendre boo gisee kër gi ñu féeteel nii waa CNN pra bizarrement flamme yi dañ leen enveloppé fumier bi enveloppé leen mais ñoom ay vitre ñoo toj bu fekkoon na ngelaw lu côté boobu lañ jëm imagine hmm? loolu mooy problème bu dëkk bi quoi kenn amul droit wax kenn sañul wax te il faut que na nit ñi ñu am courage wax kenn du wax pour wax pour gaañ nit kenn du wax pour yàqal nit kenn du wax pour soxaraatu nit mais quand tu es un homme public yàlla dénk la ay responsabilité ñuy xaar si yow pour nga wax danga war a ubbi sa gémmiñ nga wax hmm? mu ngi nii école Jean Mermoz mu ngi nii si voisinage bi mais OCASA Mermoz bu ñu xëyee kenn du gontu waa waa cité avion suñu waa koñ fii fii yëpp dañuy xaar ba waa Jean Mermoz passé pour ñi ñi mën a génn dëkk bi un jour j'ai commencé à le dénoncer ñi ñi naan waaye lu nañu di ko wax maa leen pourtant de Jean Mermoz benn doomu Wakaam jàngu fa hmm? mais yéen ñii bu ñu xëyee yéen ñëpp da ngeen di xaar ba ñu pare kenn du jéem a lijjanti plan de stationnement kenn du lijjanti zone de station stationnement kenn du lijjanti plan de circulation kenn sañu si sax wax ñëpp dañuy toog rek noppi koñu wakaam yëpp ay oto lay doon oto bu ne benn nit rek lay jël si bu am na war nañ si mën a wax am nañ am droit école Jean Mermoz biis yi yàqu yeex biis yi yëpp dañuy daw dañuy daw école Jean Mermoz foofu yëpp parking la bu nga boo fa bëggee génn sax fii suñu koñ à pied des fois tu as des parce que dañu ko gaar oto ba mu fees pour nga génn jaar si gannaaw dem si terrain football bi wala nga dem cité avion da ngay am problème waaw mais ñu ne kenn sañu ko wax loolu daal la ñuy ñaan autorités yi fi ne kër la mairie la gouvernance la la présidence ministère de l'intérieur qu'ils prennent des mesures débarrasser ñu de tout ça là ah ñoom am na ñu métier am nañu droit demander fu ñu war a mën a wu pour liggéey ah implanter wu avec beaucoup de sécurité nit day nekk fii sax nekk si implanté war a liggéey ñu ñi di la xeex ngay gis ñuy def tout pour nga bañ a démarrer te loolu noonu moom moo mënul continuer si dëkk bi kenn xeexul kenn kenn waxul kenn dara mais bii flamme yi déclenché fii ñëpp a tiit ñëpp a jóg daw hmm? donc loolu rek laa si doon wax daal bu ñun xamante nañ ku ne xam nga sa morom ku ne xam nga aussi loo xam loo man ax loo manul ah nekk fii di wax wala di jéem a wax yóbbu wax ji fu mu yeggul soxlawul lii nga xam ne mooy réalité bi mooy un atelier de mécanicien munul nekk dans dans une agglomération oto dafa am essence am huile am acide am am am caoutchouc pneu yi caoutchouc la bi ñuy bi tàkk ñu koy sotti ndox dama ne leen na bu fatigué pas comme ngelaw bi côté ba la jëm bàyyi leen oto yi ñu tàkk parce que wóorul hmm? gis naa booy di daw di di rayante di rayante ma ne leen comme na leen a jëm bàyyi leen oto yi ñu tàkk ngay xaar pompier lii nga xam ne moom moo nekk diggante kër yi ak oto yi ngeen dindi ko pour mu bañ am connexion waaw loolu laa si wax mais bu fekkee loo wax rek ñu jël ko yóbbu ko feneen nit ñi dinañ wax ah loolu moom amul amul sax weerante waaw jërëjëf Moussa nañuy ñaan daal autorité yi ñu bañ a def distinction nañu fexe lii na fi joge terrain yi fi nekk xale yi Wakaam soxla nañ ko xale yi dëkk bi soxla nañ ko ñu waxtaan ax ñii ko moom bu dee am na ñu ko moom ñu xool nu ñu koy réquisitionné wala nuñ koy jënd si moom ñoom wala nu koy échanger ñoo xam ñu def ko terrain yu baax xale yi di fi fubale moo gën ñu jël ko antas antasé ko boo jogee fii si biisu naar yi ak ah, ah, ay karkaasam amoon na ay temps éleveur élevage porc moo fa ne woon ay mbaam bu tawee fii dëkk bi yëpp day xet xet moo ñu booy koñ bi ñoo mujjee bind pour mu jóge fi élevage bi boo jógee foofu mécaniciens yi boo jógee si mécaniciens yi garage yu taximaan yi boo jógee si garage yu taximaan yi laveur de voiture yi nga jógee si laveur de voiture yi camion mbalit yi nga jógee si camion mbalit yi horaire yi donc tout cet espace la ñoom ñu ngi ko grignoté si terrain football bi léegi xale yi di xat-xatlu boo seetloo terrain football bi euh, euh, euh, oto yi ñu ngi tafu si camp yi jal boobu ngay gis noonu mbalit la booy Wakaam yi di football yëpp si mbalit la ñuy football en fait loolu noonu ñu wax ne il faut que ñu jël si ay mesures ñu dindi ko c' est pas normal incendie yu toll nii am passé comme ça comme carte lettre à la poste c' est pas normal jërëjëf maa ngi jéggalu nag yow visé ñu kenn waxuñu kenn mais bu fekkee wax rek la dinañu wax te dinañu waxaat te dinañu gën a wax incha allah jërë ngeen